jamono ji nga xam ni mën nañ ne jàpp nañu lii di appel bi ñu kii di Mame ñaa Niang daal defoon ak ki nga xam ni dafa jëm ci procureur bi yemoo ak le 17 avril bi ñu jëm loolee tax na mën nañ ne li nga xam ni ñoo di greffier yi da daal dañ nekkoon ba ba léegi ab grève te gis nañu ba léegi mun nañ ne boobule moo dordu daal di tegeekuwul benn yoon tey jii ki nga xam ni moo di wuyoo ci turu Awa Ndiaye nekk journaliste chroniqueuse foofee ca wal fajiri àdduna jëmee ana la ma fi patam patamee ci ginnaaw jamono ji nga xam ne mën nañ ne yooyu la griffé dañaa nekk li nga xam ni moo di grève ba indi fi li nga xam ni moo di procès kii di mam ki nga xam moo di Mame Mbaye Niang ak kii di Ousmane Sonko fan la ñuy jaar ak ban griffé lañ daal di yor ca loolee sax dañuy taxaw déglu kàddu yi nga xam ni moom Awa Diop Ndiaye Walf daal na ci àddu ñëwaat. moo waroon interjeté appel mais parquet moo njëkk a annoncé interjeté appel mais décision de par période ba muy génn. les greffiers étaient en grève te ba léegi may wax ak yow les greffiers sont en grève te ñoom décision de justice cëggal guy gi mujjantal gi ñoom ñoo ko war a génnee kon yan greffier la wan seen loxo pour génnee décision de justice boobu en un temps record tey en un temps record également on nous programme le procès en appel pour le 17 avril ba pare ñu ne la ba ñuy jébbal kayit ba dañoo juum ne trois mois avec sursis moo di ne seen volonté seen bon vouloir rek lañu def ci li nga xamante ne moom moo di ci këyit boobu léegi nag wax ji moom mooy euh, Pamatar ñun fi mu nekk nii affaire yi c'est tellement flagrant ba nga xamante ne on nous dit plus que la justice est rendue au nom du peuple yi parce que lii fast track bu toll nii ñu ne la euh, benn partie de la justice ñoo xamante ne jugement mënul dem. bàyyi leen ginnaaw dañu nekk engrais grève mais pourtant loolu yëpp daxañ nañ ko tënk nañ ko pour amal euh, ce procès là léegi nag ndax mën nañu dindi ci xelu askan wi ne dafa am jubluwaay jubluwaay bi mooy lan tey jii Ousmane Sonko du nekk candidat à la présidentielle de 2024 mais jubluwaayu loo xamante ne koo xamante ne nee na day ragg deram day setal deram ñu jox la ndàmpaay ñu teg daan xanaa tu devais te suffire à ça mais tey jii parquet bi interjeté appel parquet lu ci yoonam loolu yëpp rassemblé tey war nañu mun a toog naan xelu askan bi doo leen wax ci justice doo wax ci ni ñuy doxalee doo wax ci li nga xam ne moom la ñuy jëf regardez laissez-nous faire loolu mënul nekk ci réew mi pamataan ay nit yoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu yoon ñoo ci nekk te li lay wax justice dafa am ay démembrement tey jii la greffe dañu bokk ci loo xamante ne ci Euh, judicature si euh, jugement dañ ci boq mais ñooñu tey jii bu fekkee ne dañu nekk en grève depuis loolu jugement yu bëri tardé mhm. décision yu justice yu bëri tarde ndax greffier bi moo ko war a def waaye léegi bu bii procès lan la différencier ak yeneen sénégalais yoo xamante ne greffier yi grève moo leen porté préjudice ba nga xamante ne tey seen décision de justice génnul bii jéem nañu ut kon greffier boo xamante ne wan nañu loxoom ne ko génneel décision de justice bi ñu mettre ko en branle rapidement toogaat new interjeté waat nañu appel ñu ne déet na waaye ñu ne jàpp nañ date bi la 17. léegi mbir yi lan lay niru. léegi nit ñi lan la ñu war a wax lu dul ne dafa am jubluwaay jubluwaay bi mooy lan sànq ab euh, doomu aadama boo xam te ne sénégalais yi jox nañ ko bopp bëgg nañ ko mu nekk seen candidat à la présidentielle pour le bon vouloir de tierce personne moom moo war a tax tey jii ñu mettre en branle tout ça. pour secouer encore euh, le pays. jamono ji moom Awa Ndiaye kàddu yi la daal di xamle ana yan greffier lañ daal di weñ seen loxo ba tax na ñu bugg leen defloo li nga xam ni moo di liggéey bi doy bi nga xam ni lenn ci seen i naataango griffier ñoom ñëpp jamono gu joxe ak yéen lekk nañ li nga xam ne moo di grève loolee tax na du lenn lu dul pëtam pëtamee ab dossier bi nga xam ni tamit ci côté judiciaire mën nañ ne gaaw bi mu gaaw ci li nga xam ni ginnaaw ki di Ousmane sonk am na ab sañ-sañu def ab recours loolee sax may ñu ko temps boobu kii di ministre bi la daal dugalaat li nga xam ni moo di ak appelam rawat na ki nga xam moo di procureur général bi nga xam ni mun nañ ne yoonam nekku ci ana lan lañ bëgg ba tax na loole ñu daal ko def ndax kon Sénégal li ñëpp di wax moo daal di am mooy kat seen njiit seen njiit bi nga xam ni moo leen di sant li nu mel dëgg la mën ne ci ginnaaw lii rek affaire politique politique seen kese tey jii nag moom Awa Ndiaye daal di addu jëmale ci kàddu yi nga xam ni gis na ko ci taxawaay bi nga xam ni am na ci dossier kii du Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko Télé Futur 70 ñëw def ab jàngat saa su ne comme nu mu koy defee mu nekk mbir yi nga xam ni Sénégal gile gis nañu saa su ne suñu bëggee na saxal ab candidature jàmbur nii la la fay daal di demee te population bi nga xam ni ñoo war a tànn saa su dañuy dem ba mujj bi duñ ci mën ab dara lu dul wax rek lay doonee ndax suñu seetloo ca gannaaw Mamadou Dia ab ki nga xam ni moo di président bile daal di Senghor loolee mën nañ ne lii nga xam ni tey jii moo di daal taxawee ci président Macky Sall ak kii di Ousmane Sonko nii la la daal demee woon ndax kat Mamadou nekkoon na ko am doole ci mim réew di Sénégal am taxawaay bu am solo moom sax usman Sonko mi la bokk na ci ñu muy roy waaye kat dañaa gis ni ginnaaw bi nga xamee ne dooleem jéggi na doyo te ki nga xam ni moo di Léopold Sédar Senghor daal na koy convaincre ci anam bu nekk moom Mamadou Dia bañ bañ ba tëdd ca naaj ba tey jii li ñu daal di def moom Senghor daal di jëmale ci leen li nga di kër diine yi woo xam leen bu baax baax kii di Murja dafa bëgg a taxaw li nga xam ni moo di daaneel bépp kër diine waaye nag dafa bëgg a indi ab beneen politique bu bees ci mim réew di Sénégal loolee tax na mën nañ ne Mamadou Dia am ay jafe-jafe politique bu baax ba li nga xam ni moo di justice Sénégal daal ci dugal seen loxo teg ko daal di jàpp ki nga xam moo di Mamadou Dia tëj ko lu tolloog ci ay weer wala ay at ci li nga xam moo di prison bi la loolee sax tax na ba mu ci jugee daal ci ñàkk ak gëtam tey jii mën nañ ne taxawaay boobee tamit la gisaat ci ki nga xam ni moo di njiitalu Pastef bi la daadi di wéy ci turu Ousmane Sonko daanaka mën nañ ne suñu deful ndànk jamono guñ toll nii ak fi nga xam ne lañ jëm muy la le set bi daan na wax sax naan amul benn mbindeef wala dara li nga xam ni tax na mu war a mun a lu ko mën a tere ba deux ba deux mille vingt quatre du bokk waaye daanaka problème bi ñu toll nii ku ku nekk tiit nga ngir kat am yaakaar ni kii di njiital Pastef bile ginnaaw ba ñuy weñee seeni loxo ginnaaw ba ñu taxawee taxawaay bile ba nga xam ne yéen institution yi nga xam ne ñoo waroon doxal dëgg ak jubal gis nañ ñëpp daal di jublu fi nga xam ne moo di parti pouvoir bile mën nañ ne ku tiitul ku nekk tiit nga ngir kat la di sett anam la moo nar a xew ci dossier Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr waaye daanaka mën nañ ne justice Sénégal su fekkee ni ñoom ñoo àtte ba ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang def ab taxawaayam sant gërëm jëmale ko ci askanu Sénégal gëmale ko ci justice Sénégal jëmale ko ci am di jàmm yeeg soxna yeeg njaboot gi lépp kon lan moo fi taxawaat ba tax na muy def li ni mel daanaka mën nañ ne li Sénégalais yi di wax dañ daal di nekkaat dëgg mooy kat ki di Mame Mbaye Niang mën nañ ne problème bi yëpp daa rek daanaka sax moom xamul lu xew yëgul lu xew dañ kaa def loo rek mu daal def waaye li mën a ba am ba am nañu bàyyi xel ni nguur yàlla moo koy joxe amaana mën nañ leen jël tey ji Ousmane Sonko ngir kat lakkal bi mu leen lakkal ba tax ñu bëgg ko fagagal yàlla indiwaat ku gën a taxaw Ousmane Sonko ku gën a garaaw Ousmane Sonko ko xam ni kenn du ko yaakaare woon dina doon président comme ni ko Macky Sall nekkee jamono gi ñu ak yéen lu mu na ba am ba am tamit am nañu yaakaar bu baax saa su ne suñu justice Sénégal nañ def liggéey bu mucc ay ci le 17 bi ñu jëm